xalaatee si match démb bi la Côte d'Ivoire euh, nekk pays organisateur mu encaissé démb 4 buts euh, loolu lan lay expliquer pour yow. c'est un choc psychologique non c'est un choc à les voir pleurer euh, da ngay gis ne le peuple a mal. et loolu football rek. ils l'ont manifesté non, hier ils l'ont ils mm. pays hôte qui a investi beaucoup de ils ne sont pas encore éliminés. Ouais. il faut le dire Euh, la la désillusion bi am démb ci football euh, ci ci mu kan bi musuñu ko am ça rappelle le Brésil euh, Allemagne 2014 7 en 2014 bi ñu jëlee 7-1 mhm. dafay mar dafay c'est dafay marquer le peuple à à à jamais et je pense que en Coupe d'Afrique gisaguñu équipe bu organisée jël 4 4 buts gis gisaguñ ko ils sont affectés actuellement. C'est 4 buts à 0, non à 0. Et cette équipe de Milen Dor, ce n'est pas, pas des manchots. Mm. Soué est le, meilleur buteur euh, actuellement de la Cannes avec, cinq avec buts. Mm -hmm. Maintenant, qu'est-ce qui s'est qu passé le football, mm -hmm. euh, il suffit d'un rien pour que l'équipe B lâche. Ils ont raté des occasions de but. Ouais, ils même. ont raté des occasions de revenir, de tuer le match. mais euh, dans une compétition pareille avec une équipe aussi bien organisée que celle de euh, li ñu doon dajal dem. Guinée équatoriale Guinée équatoriale avec les souhaits et autres mais euh, dañ leen di dañ leen di dañ leen di gagné. Mhm. un nivellement des valeurs actuellement nii ci équipe bi maintenant équipe bi on peut dire ah ndax gase la xam nga gase équipe bi France bi ba dañ ko dàq xam nga foofu laay wax. ne mais mais Saint-Étienne da ko dàq Bordeaux da koo dàq. c'est-à-dire que il faut que les gens. Euh, Afrique ñu yeewu on a si continent bi des techniciens kon ne me dise pas que Côte d'Ivoire amul de grands techniciens mais des, des Ivoiriens bu ñu ma ko wax y a y beaucoup de joueurs ivoiriens yu fi nekk qu'on ne me dise pas que Jean-Louis Gasset c'est la solution il faut pas que il faut que Afrique yeewu ces sorciers blancs la dañuy ñëw fii c'est pour se faire de l'argent demaat seen demaat seen yoon mm-hmm. il faut que Aliou puisse continuer à servir d'exemple boo xoolee actuellement nii mhm. il a décomplexé mhm. les les entraîneurs africains Aliou Cissé beaucoup de pays aujourd'hui mis sur l'expertise locale parce que ils ont vu que Aliou Cissé aujourd'hui au plan international le Sénégal est de prier peut-être de de de coupe du yu mu yu mu yóbbu mais nañu décomplexé maintenant Côte d'Ivoire franchement euh, en Séné en 92 Sénégal 92 mhm. mm. dañuy éliminer fii ñun alors maa ngi ànd ak suma benn rak ama muy jooy euh, benn Ivoirien ñëw ne ma mais euh, frère mënu kaa mënuma pour gagner coupe d'Afrique là il faut pleurer parce que ñoom bi ñu koy organiser en 84 ils ont eu une désillusion ñu ñëw fii Sénégal ñu ñëw jël fii euh, Coupe d'Afrique bi en 92 si si vous vous mm-hmm. donc nee na balaa ngay jël Coupe d'Afrique da ngay jooy. j'étais pas encore née. mais <laughs> mais là là c'est un choc